bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi tawi ridwani wa tamkin yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web tv Al Azhar Touba maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu aq di leen balu aq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñun ñëpp jéggal suñu bàkkaar te xiir ñu ci njub te saxal nu ci ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbokk yi Alazhar Touba ñëwaat na ci seen émission spéciale màggal euh, ginnaaw bi mu leen nuyoo tey jiital ci nuyoo boobu alxalifatul am li taifatil mouridia si Sidi al Muxtaar ak euh, mboolem mbokkam yi euh, di leen ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy bisu màggaluk Touba di bis bi nga xam ne ni. ci la Serigne Touba Seyxul Xadim radiallahu anhu liggéeyale woon boroomam ba boroomam fayee ko lu kawe njortam mu lott ci cantam nag tax mu woo mboolem jullit ñi rawatina euh, ñi aju ci moom ngir ñu sant santaleel ko boroomam ñu nekk nag ci cant googu di ñaan sun borom subhaanahu wa taala mu defal ñu ca lu kawe sun njort te yaakaar nañ ko ci lool ndax Serigne Touba néewul kaay leen sant waaye kaay leen sant lema la wax lema googu lu ci am solo la ndax day wone ne li ngay sant moomoo ko waaye moom nga koy defal mi ngi tolloo kaay leen bayle ma wala kaay leen góoble ma tekkiwul ne la nga bay wala la nga góob yaa ko moom waaye la ngay xaar mooy boo xaaree ñu añal la kon boog euh, ginnaaw bi nga xam ne nii ñuy santale le Serigne Touba suñu borom subhanahu wa taala ci bisam bi bu bisam bu màgg bi euh, nañ ko bàyyee nag suñu bopp mu tànnalal ñu lam bëgg ci noonu te yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci daje ngërëmul suñu borom ak ngërëmul Serigne Touba ko mbokk yi ni ngeen ko xamee bu màggal Juba Al Azhar dafay tànn ay thèmes yu am solo euh, yu aju ci diine ak ci njàngaleem Serigne Touba tànn ay boroomi xam-xam di ko ànd ak ñoom ngir euh, ñu koy tasaare euh, ci diirub bisi màggal gi tey nag ki nga xam ne nii tànn nañ ko ci boroom xam-xam yi moo di Serigne Mouhamadul Mourtada Touré. thème bi nga xam ne nii tànn nañ ko nag mooy bi nga xam ne mooy euh, euh, nit ki bu jógee këram di màggal si teggin yi mu war a làmboo ki koy accueillir tam bu accès teggin yi ñu war a yi mu war a yi ñu war làmboo ñeel ñi nga xam ne ñoo fekk si kon ñaari teggin yooyu moom la ñuy waxtaanee tey ki nga xam ne nii moo jóg jëm si Touba ak ki nga xam ne nii moo koy gàttandu Cheikh Mouhamadul Mourtala Euh, ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar ñu lay bàyyee kàddu gi nga nuyoo mbokki taalibe yi ñu doog a ñëw ci tomb bu njëkk bi. aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim <clears throat> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain jërëjëf sëriñ Mouhamadul Amin Touré ñu ngi lay delloo nuyoo bu sell nuyoo bu lislaam la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu mbokki jullit yëpp ci àdduna bi yi jànnoog ñun ak mbokki taalibe yi fu ñu mën di nekk di leen ci xew-xew bu mag bi ñu jublu si di ñaanal bu baaxit ki nga xam ne mooy xalifa Sëriñ Tuubaa muy Cheikh Sidil Mokhtar yàlla bàyyi ko fi yokk wéram ba lim liggéey bay lim yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mat ànd kook mbokk yu baax yëpp. Euh, jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mourtada Euh, comme niñ ko xame sëñ sëñ Touba Xaadimu Rasuul moo woote ay millions yi nit jóge ci biir réew mi ak ci bitim réew war wuy si fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ki nga xam ne nii dafay wuy si yan teggin la war a làmboo. jërëjëf sëriñ Mouhamadul Amin laaj boobu laaj bu am solo la ndax màggal ginnaaw ba léegi ku nekk defeetoo ko sa kër dañuy ñëw. benn barab muy Touba daanaka ñëpp di ko fi defee mu mel ni kon léegi euh, dañuy dañuy dem màggali am ñu fa fekk kon kii kii fekk si am na nu war a melokaanoo ki ñuy fekk si itam am na nu mu war a melokaanoo waaye ñu njëkk ci bi nga laaj muy kii fekk si ki ñëw li war a njëkk ci moom mooy mu yéene màggal si maanaam yéene sant la Sëriñ Tuubaa bis bi mu yéene ko ci santale yàlla maanaam be dara bañ koo yëkkati lu dul cant googu bañ ñëw ngir commerce bañ ñëw ngir def naka su dul noonu bañ ñëw ngir dugg ci lu mu warta dugg waaye yéeneem dafa war a doon rek ñëw ngir màggal si ndax loo yéene rek loolu lañ lay fay kon ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe sëñ Tuubaa indi ko ci naaju ni innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawa nee na jëf yu nekk ci yéene yi ci yéene yi lañ koy natt nit ki li mu yéene rek lañ koy fay kon d'abord booy màggal si da ngaa war a yéene def lu baax euh, yéene jooju nag yaa ngi ko war a feeñal ci barab yu bari waru bayi ba àgg Tuubaa rek doo ko feeñal waaye ci yoon wi booy ñëw Tuubaa ci nga war a di tàmbalee di feeñal sa yéene ju baax jooju euh, Sëriñ Tuubaa dafay wax ci nax ju ne su fekkee danga nga aw nit ditukki tukki leen dimbali ci ajo juñ man di am wa xaytuma qawman fi safar fa kun muaynahum ala kulli watar mu ni saa yoo ay nit di tukki aajo yëpp nañ leen ci dimbali daan ni wax dim humu waraa rawaaxilahumu waxaadinamtiatahum baadahum daan na leen liggéeyal na leen sàmmal seen ay warwaay na leen boqal na leen gàddu seen ay bagaas liggéeyal leen gi man nga boo rombee ci yoon wi gis ku paan eh, soxla lu mel ne ku ko yóbbaale mu jënd eh, essence nga yóbbaale ko walla mu crevé te amul lum eh, defare nga taxaw jàppale ko mu defar wala ñu soxla nga romb ci yoon wi sax ñoo xam ne dañoo soxla woo ab dundu eh, lu mel ne maranaan wala xiif nga wàcc jël jox leen loolu lépp ci liggéey leen la bokk sàmmal leen seeni warwaay baax na ci mooy lépp luy tax maanaam accident ngay def accident ci yoon wi nga moytu ko loolu mun safoor si eh, war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax sàmmal nit ñi seeni warwaay ba du yàqu mooy fegal leen accident yi rek te loolu safoor si dong ñoo ko ñoo ko ñoo ko mën a moytu di leen bokkal seeni i mooy tey jii koo ci romb euh, mu yor loo xam ne leer na jaaduwul te yow euh, xëy na bokk ngeen wàll goo leen jëm nga te nga yor oto nga wàcce dara ci moom jël ko téyal ko ko loolu day tolloog nga gàddul ko ko rek daanaka. kon nag leen a war a dimbali ci lépp loo mën daal ci gàttal ci lu baax moo tax mu ni wansur jamiahum bi ma stataata walahum muctadir ida gafalta dan lépp loo mën ci lu baax rek daal di leen ko dimbalee te saa yoo juuma itam nga jéggal leen kon yéene ji eh, ju baax jooju nga war a fanaanoo bala nga màggal si yaa ngi ko war a tàmbalee di feeñal ci yoon wi kon eh, bokk na ci itam su fekkee da dugg ci biir oto eh, am mag mu nekk ci biir te place ba mu toogee leer na la ne baaxul ci moom te yow am nga place bu yaatu nga jox ko te yow nga toog foofu ndax ndaw moo gën a mën a dékku ay coono moo tax mu ni wa xaytuma saaxabta shaxsan akbara min ka la tazal mu muwaqira fi safarin wa aw gayrihi fa aatira bi majlisin wa bi saabira mooy saa yoo àndee koo xam ne moo la mag dee ko fonk moo xam ci tukki bi la wala du ci tukki bi fonk gi nag mu joxe ci misaal lu mel ne dañ leen a jox ay toogukaay yi bu fekkee xajoo leen ci yéen ñaar danga ko koy bàyyee te nga muñ ndax ndaw moo attan loolu loolu lépp ci teggin yi ngay wala yéene yu baax ji nga am pour màggal si yaa ngi koy tàmbalee feeñal ci yoon yi bu jaree sax taxaw jàppandu jox ko mu toog wala nga toog ci suuf sax nga def ko moo tax mu ni wajlis ala al ardi wala takun maa ala al firaas indaa li tawsia xëy na fii sax day wax ne maanaam su fekkee da nga nekk ak nit ci barab ñu jox leen ay toogukaay mun la sëñ bi kaay toog da ko wax ngir kersa wër na la yow xajoo ci bàyyi ko mu toog ci ko nga toog ci suuf waaye loolu ba léegi mën naa dugg ci biir oto bi fi mu toll nii su fekkee dafa jar nga jóg jàppanu taxaw sax nga jàppandu taxaw te bàyyi ko mu toog loolu lépp nga nga yéene ci cant gi nga war a cant ci màggal gi euh, kon ci yoon wi lii lépp war nga koy def daal ci dimbali nit ñi loo man ndax loxoy kese mayul kenn dara lu baax loo am rek faaw coono dugg ci ni ko sëñ Tuubaa waxe ne fa daatan wa raaxatan lan yuutira شخصا لا شخص أراد أن يكون موسرا إذ منهما ليس يجيء خير bal minhuma yatil murida dayru nee na loxoy kese ak noflaayu kese nee na ku bëgg am dara doo ko doo ko doo ko doxe ndax nee na loolu du jox murid bi li mu bëgg du ko jox lu baax loolu rek la koy def kon ci yoon yi ngay def lii boo agsee ba biir Tuubaa itam ñu xëy suba ne tey la màggal gi war ngaa sol yére yu set yëre yu rafet ndax it boo nekkee ci biiru nit waroo di sol lu leen di lor xet ga wala yu demee noonu waaye nag danga koy def ngir yéene warmal taalibey Sëñ Tuubaa yi ak barab yu nit ñu baax ñi nga war a dem di leen siyaare yi ak sëriñ si nga war a dem di leen siyaare yi nga sol loolu ngir warmaal leen ko waaye bañ koo def ngir puukareewu am na ñoo xam ne col gi ñuy sol yëpp di dox ci biir Touba ngir bëgg ko ni gis leen lee mu sol la te loolu day yàq sa yoolu màggal moo tax Sëñ Tuubaa di wax ci nax ju ne wamsi li ajli xaajatin doon ixtiyaal fal ixtiyaalu jaalibun ilaa nakaal mu ni booy dox na ngay dox eh, ngir ngir ngir ngir aajo ji nga am aajo ju ju ju baax ju sell ji nga am waaye bul dox ngir puukareewu ndax puukare dalay yóbbu ci mettital mooy day yàq dal sab yool kon objectif bi nga war a am ci solo gi ngay solo mooy yéene maanaam sant yàlla rek ci bis bi ah, wax na itam ni nga war a solo ndegam léegi jamono dafa yàqu ba nit ñu bare bari ñu leen neex la ñuy solo nañ xam ne du noonu am na colin wu war a solo bu dee euh, col gu gàtt lool dañ koy tere góor goo xam ne dafa yées ay woomam dañ ko ko tere moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ci nax ju ne wa an sarawilika la taksif abad fa innahu min tarki aadaabin yuad mu ni sol diw di sol dara ba pare yëkkatiwaat ko ba sa li bokk say awra di feeñ lu mel ne say wom di feeñ nee na loolu bàyyi ay teggin lañ ko mën a jàppe kon lool it ku nekk war nga ko moytu ci màggal gi fépp lañ ko bañee waaye bis boobu da cee raw euh, jigéen ñi itam ñu xam ne itam gépp col goo xamante ne dafay yées seen jumbax bi wala seen biir euh, bokkul ci ay teggin ñu bàyyi ko moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ci nax ju ba léegi ne wax dara minal kasfi anil ni kada ma bayna surratin rukbatin lida mu ni nanga moytoo wuññi sa biir wala li nekk sa diggante sa biir ba ci ay bëti woom ak jumbaax bi yooyu yëpp mooy moytul mu feeñ loolu ku nekk war na ko bàyyi xel ci ni muy coloo ginnaaw ba nga amee yéene yi solo ngir yàlla yit nga solo solu ko lislaam bëgg ndax xeetu colo yooyu yëpp moo xam muy góor wala mu jigéen colu euh, ñàkk xam la colu kuréer la moo tax mooy Sëñ Tuubaa wax ne fa innahu lil xumqi wal jahli sima wa wa qillati almuruati almuaddama id hiya uxtu ddiini dat fuqidat laa yujadu diinu kama anhum thabat ndax nee na loolu col googu màndargam réer la ak ndof ak néew néew mbañum rus te mbañum rus moom mooy mbokkum diine foo ko ñàkkee rek ñàkk nga diine kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci col googu ak ñi xeeti ñiy wàcc seen tuwa yéeg ak xeetu col yu dang yi nga xam ne lay xew naag yëpp ñu moytu ko ndax col guy tafu ci yaram ba di génne sa formu yaram loolu lépp dañ koy tere rawatina ji góor ak jigéen a ci yam bokk na ci itam boo ci bisu màggal gi kër goo dem di siyaare ji moo xam mbokk yi la wala sëriñ si foo dem di àgg itam nga nuyoo waaye ñëw ci kër fekk ay nit toog ci bunt bi nga ni saraax ci biir te nuyoo léeg-léeg sax nit dana ko def ci këru sëriñ ñu téye ko mu xuloo fa te moo ko teg boppam dangay nuyoo laajte ñu wax moo tax sëñ Tuubaa di wax ne wa salliman ala alladi qadimta alayhi in taadduban talabta nee na saa yoo dikkee ciw nit na nga leen nuyu ndax moo gën a jur jàmm nuyoo laajte la nga bëgg ñu defal la ko ci biir màggal gi itam ndegam nit ñu nekk ñoo fi ñëw ay nañu am na ñoo xam ne xëy na li leen fi indi du màggal si dañuy toog seeni jotaay di nekk ci dere ay jàmbur wala ñuy waxtaanee lu ñu warta waxtaane jotaay yooyu itam da nga koo war di moytu tey toog te ngay toog ci jotaay boo xam ne danga ko dolli koo xam-xam wala diine moo tax euh, Sëriñ Tuubaa di wax ba léegi ne wala tu saaxib in aradta soxba daa safahin aw xasadin aw raxba wala tu jaalis xayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal murad mu ni booy booy wut àndandoo bul àndaale ku desee di maanaam koo xam ne xelam demeewul noonu wala ku iñaan wala ku séeneen ndax ñii ñëpp seeni jotaay du jur jàmm mu mel ne da ko laaj ki nga war a toogal mun na dell toog koo xam ne dolli sa diine dana la dolli xel itam ñi lañ war a ñi lañ war a toogal bokk na ci itam li nga xam ne yow mi màggal si war nga koo moytu muy lu jëm ci di xiiroo ko ak ŋaayoo ci lu jëm ci wàllu ñam daanaka ñi dëkkee Touba sax daanaka xëy na ñoom duñ tal toog di xéwloog yooyu daanaka gan ñoom ñoo koy tal am na ci <clears throat> ñenn ñoo xam ne bala ñu fay jugee ñu xam seen jikko ci ñam daanaka danañ ci xuloo <clears throat> baa ñu xeex ci wala itam ñu jël ci lu ëpp luñ ci war a jël bam gàllankoor lañ ci seen xeeti jaamu yàlla loolu itam Sëriñ Tuubaa tere na ko ci ab taalibe rawat na bis bu mel nii xam ne bisu sant yàlla la ñu war cee yokk jaamu yàlla yi moo tax mu wax ne waalam bi an al xirsa li taami min mujibaati al aari wal malaami xasbuka minhu maa yuqimu sulba taqawiyan li kay tutia rabba waxdar min alcharahi kulla dahri fa innahu mabdau kulli charri mu ne xir ci aw ñam ku nekk war na koo moytu ndax nee na luy waral gàcc la luy waral ñu la yedd la boo ci xiiroo ko yooyu ñu xam ci sa jikko daañu la yedd danga ci am gàcce boo ci lekkee loo ci wër te lekk itam lu ëpp ba gàllankoor la jaamu yàlla it ëllëg danga nga ndax danga lu bari li nga fi waroon amee da koy perte kon ñam yi itam nga jël ci loo xamante ne lu lu yam lay doon loo xam du la da jàpp jàppale ci nga mën a jaamu yàlla te nga moy cee jël loo xam ne day tax day dalay gàllankoor ci jaamu yàlla ndax loolu fala ay yëpp tàmbulee jël ci luy tee nga a jaamu yàlla ginnaaw ba itam boo dikkee nit ku nekk nga fi taseel léeg-léeg nga taseeg nga dawal sa oto wala sa sareet dégg nga wala ngay dox sax taseeg nit mu wax la lu mu la war a wax waaye na nga ko muñ bul bul ŋaayoo ndax loolu bokkul jikko yu baax makaarimul axlaaq mooy ngay jéggale mooy ngay jëlale moo tax mu ne wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama qaala al adibu wala qad nee na suñ la ŋàññee na ko muñ bul tooñ kenn saa yuñ la waxee luñ la war a wax rek na nga wax na borom xam-xam ba waxoon ne wala qad amru ala laimi yasubbu nii wa aifu thumma aqulu la yaanii nii romb naa nit koo xam ne tekkiwul dara xamul boppam muy jël lu ñaaw lu di ko teg sama der waaye dama naan ah man daal daa mel ni waxut ak man naa jàpp ni waxut ak man rek idi tasaabubu maa takaadubi min aqbaxi lxisaali ka tadaarubi ndax sëñ Tuubaa nee na ŋàññante ak fenlante ak dóorante nee na dafa bokk jikko yi gën a ñaaw kon dóoranteeg fenlante ŋàññante soo fi dikkee lépp lu la ciy woo rek bul ko wuyu ak lu metti metti fépp foo dalit buñ leen tegalee aw ñam ña ngi ko bokkal buñ dee ay mag moom rawatina waaye buñ buñ doon say morom sax def leen ñu mel ne say sang bu ci kenn xamee sa jikko bu leen njëkkee jël raxasu mi di raxasu bu leen njëkk a tàmbulee xewlu li nekk ci digg ndab li bu ko aakimu di leen bàyyi bañ ci xam sa jikko danga ko war a jël sax di leen ko tegal mel na ñoom ñoo la ci gën a yey moo tax mu ni falaa takun saabiqahu lahu abad bal amrahu fihi ntadir daaka rasfad wa kun bi jayidin min altaami muutirahu daban lil ixtiraami dina mooy liñ doon sànq ci olof bul ko jiitu ci ñam wi di xaaral ba mu tàmbali nga doog a tàmbali bul jël li ci gën a am solo di ko aakimoo di ko bàyyi ñu ngi koy bokkal de leen ko jox sax ndax loolu lépp day yokk sa yoolu màggal ñaareel bi itam ñi ñëw Tuubaa buñ jàpp ne ñëw gi ñoom dañoo ñëw rek ngir ñu ganal leen ndegam dangay ngay ñëw it te amoo fi barab boo toggee yooyu yëpp dañ lay dalal doon na baaxaale itam ngay indaale sa alal ka ngay dalal nga jox ko mu yóbbaale la ca biir màggal ga te itam bu fi indi lenn luñ fiy tere moo xam lu jëm ci wàllu drogue la wala ndox mu ñuy tere ak yu demee noonu yëpp ndax Sëñ Tuubaa nee na man am mani bi sooy ba abi darar dunya wa uxra la yufaariqu charar nee na képp ku ñëw ci man indaale salu ñaaw nee na àddina ak alaaxira doo tàqali ko ay yàlla nañ ci yàlla musal kon loolu képp kuy dikki war nga ko bàyyi xel. Hmm. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mourtada ci. tontu lu am solo loolu nga xam ne nii moom nga andi ci teggin yi nga xam ne ni ki nga xam ne nii mooy ñëw di wuy si moom la war a làmboo ñu ràññee ci ba ci jëkk mooy yéene euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne innamal amalu binniyaati yëf jëf yëpp mi ngi ci yéene wa innama li kulli imri'in ma te nit ki lu mu yéene rek moom lay moom lay am euh, yéene day lu ama am solo te ñu baree bari di ko fàtte wax nañ ne Serigne Touba Euh, radiyallahu anhu mas naa yónni kenn kenn mas na ko laaj lu jëm ci wàllu yéene mu yónni ko dara bi mu ko yónnee mu ñëw mu laaj ko ne ko loo ci yéene woon bi ma la yónnee mu ne ko dara mu ne looloo tax amoo ci dara aw kama aw euh, kon ñu gis ne euh, bari na nit ki sonn ci lu rëy a sonn coono bu metti am ca tuuti wala mu bañ caa am dara la ko waral mooy ñàkk yéene kon nit ki lu muy def mu tuut wala mu rëy war na caa jiital yéene. tudd nga ci itam dimbale nit ki ndimbal dafa am solo lool ci nit maanaam dimbale sa moroom mu jullit loolu tam tudd nga ci ko loo am solo la kooku kon ki nga xam ne mooy jóg di màggal si war naa làmboo jikko yooyu. Euh, sol yi itam ñu bañ a solo rek ngir puukare waaye solo ngir ngir worma ngir wormaal bis bi wormaal borom bis bi wormaal sa bopp itam ak euh, tam santale Euh, euh, ndax sant euh, xéewal tam dafa bokk ci solo ba jekk sol yére ya nga gën a bëgg waaye nag mu bañ a nekk ci cadre puukare loolu tam tudd nga ko ci lu am solo la tudd nga ci tam àndandoo yu ama am solo àndandoo yu baax yoo xam ne nii dañ lay yokk diine yow itam nga di leen yokk ngeen di yokkante muy wa taawanu alal birri wa taqwe wala taawanu alal ismi wal udwaani loolu tam lu ama am solo la wax nga ci itam mu bañ a xër ci ñam wi ñi ki ñi sant siise ak loo bañ a topp rek ñam wi ba ndax Touba moom fépp bernde lay doon ñu bañ a topp seen loxo ba euh, la leen waroon ci jaamu yàlla yi ñu mujj duñ ko mën loolu tam du lu am solo euh, te itam fuñ mën a nekk ak situation bi lu mu critique ñu ku nekk delloo si sa xol xam ne da ngeen a ñëw ci ak jaamu yàlla ngeen ngeen euh, dàmp seen xol bu baax a baax bañ a yëkkati seen xol lu ci mel ne di. di saagaanteeg wala ngeen di meroo wala ngeen di xuloo ci yoo xam ne ni mën naa ñàkk ndax diggante bu gàtt rek ngeen fii def delluwaat kon loolu tam lu ama am solo la ndax gis nga ci aj sax dañ naan mm, suñ borom day wax ne fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaji bu bu ngeen di aji bu ngeen dem bu leen fa wax lu bon bu leen fa bu leen fa xuloo bu ngeen fa ŋaayoo na ñëpp nekk ay mbokk ba keroog ngeen di dellu kon loolu lu ama am solo la kon Cheikh Mouhamadul Mourtala ñu ngi delluwaat rek ci tombub ñaareel bi euh, lii li nga ñu wax nii mooy ki nga xam ne nii moo jóge këram di wuyu si màggal gi waaye ki nga xam ne nag bu dikkee moom mooy yiir euh, kooku kooku moom it yan comportement la war a comporté woo. jërëjëf sëriñ Mouhamadul Amin ci laaj bu am solo boobu muy ki nga xam ne moom la taalibi sëriñ ci yi fekk ci dëkk bi naka la war a def wala ci njëkk mooy mu moom yéene lii muy defal nit ñi moom it mu yéene ne da koy def ngir màggal ngir màggal euh, ngir sant santle sëñ Tuubaa boroomam ci bis bi moom it bañ koo defit moomit ngir ne kër diw maa ko dàqale màggal walla sama kër diw seen màggal neexul sama kër fa la màggal kay neexe yooyu yëpp nga bañ ko cee dugal li ngay def lépp def ko ngir jëmm yàlla doo nga tax Euh, bu ko defee nga seetal sa kër bu baax a baax te euh, fexe barab yépp af euh, lalal lal yi bu baax a baax bale perong beeg fépp set ba nit ñi mën fa dal loolu yëpp it nga def ko ngir jëm yàlla doo nga tax te nit ñi buñ dikkee jal jalaloo sa kaw loolu metti na waaye nag nga nga jàpp ne yow yow la sëñ Tuubaa sant màggal gi jàpp ni da nga war a jàpp ne Tuubaa ku fi ñëw rek yaa ko war a dalal yow la sa kër la ñëw su ko defee lu luñ la def lu metti metti jaljalaloo gi lu metti sa kaw di ko mën a muñ bul jàpp ne ñoom war war nañ laa jox dara jàppal na lépp lu leen fi war yow yaa ko war a def moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ci lu mel noonu ci naaju ju ne wa min ta'addubika an laa tandura xaqan li nafsika ala shaxsin tara bal i'tabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al asxaaba nee na bokk na ci sag teggiinu euh, koo gis rek nga jàpp na yaa ko amel àq waaye bul jàpp ne moom amel na la àq noonu nga war a doxe nit ñi itam li la war sa diggante ñoom si ay teggiin nga def ko ba mat sëkk donte ñoom buñ ko manqué la it yow loolu bu ko xool ndax dafa wax ne nit ñi danga war di ànd ak ñoom ci sa jikko te bañ a ànd ak ñoom ci seen jikko ndax loolu boo ko defee rek dara du sotti wala sax ngay jëflanteek nit ñi soo nekkoon ñoom ni nga bëgg ñu jëflante kook yow donte ñoom jëflante wuñu yow ni nga ko bëggee yow jëflanteel ñoom ni nga bëggoon ku la ko def su doon yaay ñoom tollook li sëñ di wax naan wa kun si nnaasi jamian dëhraka kama tuxibu an yakunu maaka su ko defee suñ dikkee itam ginnaaw ba ngay leen muñalee xataay beeg coow leeg lépp du tey itam seeni aajo loo ci dégg rek jàppal na yow la war nga jéem a dem defi ko surtout ñi nga xam ne ay mag lañ mënuñu kër kër yi lu bari tolloog li Sëriñ Tuubaa di wax ci ba léegi ci naaju ne wa in samicta man yakunu akbara minka yuxaawilu zamanan watara ka an yaruuma mursalan li xaaja faqdilahu lillahi tilka alxaaja ne su fekkente ne nga nekk fi barab dégg koo xam ne xëy na moo féete mag bëgg kum yónni te xëy na rus na la ko wax surtout sax gan ñaari lum la mag mag dalay rusa yónni bu dee ñaari nit ko xel nii dalay yoon yónni mën naa gaaral nag ne ah man de su ma amoon ku ma wutal satala ma jàpp man de su ma amoon ku ma may ku ma jëndal paracétamol sama bopp day metti nee na nel ñokket jug rek ne ko andi ma wutal la ko wala nga dem wut ko jox ko wala nga dem jël satala duyal ko mu jàpp wala mu ne ah sama mbubb mi kat nangam da cee tuuru su ma amoon eau ba raxas ko demal jël andil ko yépp nga koy def te sa kanam bu ci wane dara luy wone ne ñëw giñ fi ñëw naqari na la nga jéem a rafetal sa jikko jéem leen a yaatal jéem leen a bëgg-bëgglu mu naqari deret sax yàlla koy bind nit waaye suñ dikkee nga jéem koo nëbbu bañ dem moom la sëñ Tuubaa di wax nan wa xassinil xuluqa bi tarxiibi wa bi tawaddudi bi tawaddudi ilayhim tuxba bi wa layyinil qawla li kulli naasi fa innahu min siyamil akyaasi nga rafetal sa jikko ci jëmle la ak ay jëmle na dalal ak jëmle na bëgg-bëgglu xam nga bëgg-bëgglu ma mënoo ci dëkk waaye ndegam diir bi ñuy màggal si yàggul li benn boroom xam-xam di wax ne gan moom yomb naa muñal ndax bala laa rey ñibbi bala nga ko rey mu ñibbi kon tawaddut mooy bëgg-bëgglu maanaam nga jéema changer sa comportement diiru màggal gi ba baa ñuy dem dégg nga tey du wax ji ngay nooyal bul gëdd kenn xëy na nga di boole dalal nit ñi di leen jox sa alal ñuy dunde ba pare mm, ñuy def ñu amee yenn comportement yi dafa xaw a metti waaye bu mu tax nga gëdd ci kenn wala nga wax ci kenn loo ko war a wax del nooyal sa wax ndax loolu nee na nit ku muus moom moo koy def ginnaaw ba yow lañu fekk si itam sa alal baye nga génn lépp fas yéene seeni ajo yëpp nga couvrir ko maanaam fexe ba bañ bañ a manqué dara bañ nekku nay yow mi ñuy fekk si di war a nekk nay nayit boo ko defee ñi nga ñi la dalal ñi nga dalal seen màggal du neex ndax berne yi nga xam ne moo ëpp solo ci màggal ala la koy def te kon doo ko def te nay baaxul dafa bari lu muy xañ ab jullit Sëñ Tuubaa wax na ko ci nax ju ne wala takun awdu baxiilan bil xutaam fi hadihi dunya fa tuxza fi lqiyaam fa inna dal buxla min allahi wa min jamici xalqihi bacidun id yacan wa saaxibu lbuxli ila niiraani yuqaadu matruudan an iljinaani daani nee na bul nekk ku nay mukk ci alali àddina ndax nee na boo ko defee ëllëg yowmal xiyaam da nga am gàcce gàcce gi mooy bu ñëpp ñëwee màggal si nga war leen a génn sa alal berne leen am ci yiw wudul jeex defoo ko naan màggal naa ëllëg jot nga xool sa sa sa sa fa ngay denc fa ñuy denc sa yow gisoo fa dara loolu gàcce la te it ku yi day sori nit ñi sori yàlla ndax nit ñi lu baax li nga jariñoo ëllëg yàlla nga koy defal wala nga defal ko nit ñi ngir yàlla te nay boo ko defee defaloo yàlla defaloo nit ñi ngir yàlla moo tax da ngay sori yàlla sori nit ñi da doon koo xam ne itam sawar ngay gën a jege ci aljanna yàlla nañ ci yàlla musal kon ki ñuy fekk si moom nay war na ko génne ci ay jikkoom waaye wa aksuhu saxiyu fi ma qiila fa kun saxiyan la takun baxiila waaye ko tabe itam safaan bi la day jege yàlla jege nit ñi day jege aljanna day sori sawara loolu rek war naa tax euh, jéem a tabe ci màggal gi ba ba muy jàll Sëriñ Tuubaa it radiyallahu anhu waxoon na ne màggal yi tax mu am solo ñaariñ fuñ fu dende kii di ko def keneen ko defu ko balaa déwén ka ko doon def danañ gis lam ëppulee ka ko doon deful te loolu tabe rek moo la ko mën a may kon màggal yi tabe lu ci baax la te it alal luy jar di ci nay wala di ci tabe di di ci di ci nay di ko denc ba bis bu mel ne bis bu mel ne màggal raw la yi wi ci nekk raw la dara jëru ko ndax danga ko fi bàyyi rek ñu dond la ni ko Seydina Ali waxee ne ida kaanatil amwaalu li tarki jamcuha fama baalu matrukin bihil maru yabxalu mu ni alal alal su fekkee danga koy dajale ba noppi bàyyiwaat ko fi ana lan mooy solos nga ci nay kon loo xam ne da nga ko fi bàyyiwaat ñu dond ñu dond la ko warulaa jaral perte aw yiw woo xamante ne ëllëg mën nga cee jariñu jariñ ci ay nit bu ko defee kon nga génne sa alal teral ci nit ñi moo tax mu ni wa akrimil adyaafa bi tarxiibi wa bil qiraa wal bisri wa taqribi nga teral gan yi ci dalal leen fexe bañ amay daluwaay dem luyee say mat la wala abbu ko baas kër gi ak yu demee noonu sax murid yëpp a ngi ci waaye gën a soññee rek la fexe berne yi di mat fexe it ngay bég foo toll taqrib mooy ji leen jegeñal sa bopp mooy ku nekk rek nga woon ko ne boo dalul woon ci man sama màggal du neex ba ku nekk ëllëg day sawar a ñëw ci yow ndax nit ki boo ko berne itam te xaw koo sewal won ko ne yaa ngi may tegi coono ëllëg doo ko ci gisati te loolu day wàññi sa yiwu màggal ndax yow màggal noo gën a berne rek sa yiw di gën a yokk kon noo gën a amee nit ñi ñuy gën a mën a dal ci yow eh, bañ a nekk itam ku xat dënn maanaam ku ku xaw a tëju ba mu ëpp xam ne ku dikk nuyu la sax ne laa man de dama dama màggal si waaye kër sëñ Mouhamadul Amin laa war a dal nga ne ko ah, këram dee ngi fi soriwul nga ci sensé day dégg ne bëggoo bëggoo nga dal këram day day gan gi day dégg ne bëgg nga mu dem mu daal di dem loolu it baaxul. da nga ko war a téye ne ko ah, yow kat man nga war a màggalal soo màggalul ci man màggal sama màggal du neex donte du ko nangu itam nga wax ko loolu ba buy dem xolam kontaan ci yow loolu yi sax da ci amee yiw fi mu toll nii ndax seral xolub jullit rek rawat na taalibe bi Sëñ Tuubaa lu nekk xañ na ci ci yiw moo tax Sëñ Tuubaa di wax ne la yastadiq li dayfi minkal kalkalu fa innahu amma qaribin yarxalu gan gi bu dikkee sa xol bu mu xat ci moom ndax diir bu gàtt day demaat bu mu dikk rek ne kër diw laa soxla rek nga ne ko demal moo ne le jéem sax bu lànkee sax nga doo ko bàyyi ba mu xam ne bëggoon nga mu toog te it buñ dikkee bul mel ne rek euh, maanaam koo xam ne bëgguñu itam mu ñëw ci kër gi buñ foo leen gisee del reetaan di beelil saxar kanam dégg nga moo tax suñ <coughs> tubaab di wax ne <coughs> basaasatu wajhul mar'i xayrun min al qiraa fa kayfa bi man yaati bihi wa huwa daaxiku nee na nit ki bu dikkee ci yow di màggal si wala mu gane si la nga nga muuñ wala nga muuñ rek ne loolu moo gën berne moo ko ëpp yool moo ko gën ci gan gi kon nag bu fekkee da nga koo gis ba par di reetaan ba mu xam ne ba gan nga xam ne yow kontaan nga ci dikk gim dikk loolu yool bi ci nekk kenn xamu ko ak itam di nangoo génn sa néeg loo sonn sonn itam néeg yi <clears throat> nga wax ñi dëkk ci kër gi ñu aal ko gan ñi ndax loolu àq la ju leen war yi ñi nekk Tuuba ñeel gan yi Sëñ Tuubaa di wax ne wa dayfa akrimu fa inna mabitahu xaqun wala taku laanatan lin nuzuli nee na gan gi fanaan bi muy fanaan sa kër àq la ju mu amee kon loolu bul ko ko xañ mukk ndax euh, lim ci tegaan moo am solo ndax dañuy gan bu delloo fa mu dëkk day nettali dana toog ba ñuy tagg aw nit ci berne mu ni ah ci ganale mu ne ñama demoon de kenn dàqu leen a ganale ñooñu kenn du mel ni ñoom wala ñuy xas ñu sàggan ci ñàkk a ganale mu ne ah kenn du yées eh, demoon de ñooñu nga xam ne seen néegi ñoom rek ñoo ci fanaan ci biti lañ lay bàyyi mooy li wax ne waalam bi anna dayfa muxbiru ahlihi bi mabitihi abadan wa in lam yusali donte laajuñu ko bu ñibbee dana nettali na nga ko dalale kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la kon daal ci gàttal képp ku la gane si rek meeral ci moom ni waykat ba waxoon ne manziluna rahbun liman zaarahu naxnu sawaun fiihi wa taariqu fa kullu ma fiihi xalaalun lahu illa alladi xaramahu alxaaliqu waykat ba dafa wax ne man daal ñun daal suñu kër képp ku ñu dalal rek yaa moom li nekk ci kër gi moo xam xam nañ la moo xam xamuñu la boo ñu dalalee rek lu nekk ci kër gi te doon lu yàlla daganal rek yaa ko moom kon ku nekk jéem a mel noonu waa ji wax ko defee nga mën a am sa yoolu màggal kon lii mooy li nga xam ne tënkoon nañ ko kon yàlla nañu yàlla boole ci eh, ñi nga xam ne dañuy def màggal gi ni ko borom bëggee ba li ci nekk ci njariñ ak yooyu yëpp ñu mën cee jot saytaan ak bakkan ak bànneex ak àddina dara bañ cee am yoon ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mourtada ci tontu yu am solo yooyu nga xam ne tontu nga ko ci ki nga xam ne nii moom la ñu fekk si teggin yi nga xam ne nii moom la war làmboo ñeel ki fekk si ñu lim ci takk ci rek euh, mu bañ a def dara ngir puukare euh, te itam kër gi maanaam barab bi nga xam ne nii fi lañ koy fekk mu setal ko bu baax a baax moo tax jamono yii foo toll Touba yaa ngi gis ñuy pentiraat ak di defaraat lépp rek ngir teeru gan ñi teral leen euh, te itam gan ñi buñ xasee ba ñëw lépp loo man ci seen i aajo nga nga fajal leen ko te it sopp euh, sopp lu leen nga xam ne doo tëj sa euh, sa xar kanam ci ñoom ndax euh, loolu xar kanam loo ci euh, xol bi lu ci nekk rek day feeñ ci xar kanam gi kon léegi lépp li nga ëmb ci sab xol rek nit ki mën na ko xam daanaka ci sa ay bët moo tax jamono yu nekk <coughs> ngay war di feeñal ak ci ñoom euh, ndax boo demee sax ci réew yi tubaab yi mm, léeg-léeg nga dugg fenn di jënd waaye dañ lay accueillir accueil boo xam ne ni yow sax dalay lay da kii te fekk ne yow li nga yor rek lañ bëgg waaye ñoom sax du boo ca bëggoon dañ la koy may ndegam nag yow yaa am gan nga xam ne li li nekk ci kër gi yëpp daanaka lum ci bëgg rek euh, da nga ko koy jox ba noppi boole ci xar kanam loolu yool bu kawe kawe la ci suñu borom bañ a tam nay ndax nay moom wax nga ko sànq euh, ndegam alal yi moom buñ ko dajalee mu jëm rek mooy ñu donnuwaat ko kon lu ci jar nay kon lépp loo xam ne nii man nga ko rek euh, na nga ko def ñeel gan ñi ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne fu fi ñaari nit daje kii di ko màggal kii di ko ñàkk a màggal te màggal gi mooy la nga am lépp te man ko nga def ko ca euh, euh, ngir yàlla ak ngir santale ko nee na bu fi ñaar daje kii di ko def kii ba kii di ko bañ a def ka koy def du dañ di gis la muy rawe ka ko dul def ba faw te itam waxoon na ne bu ci kenn euh, naw gëléem ndeem mën na ko am loola mooy lu bari bari boo ko ci defee rek yool bañ lay faye ëllëg dana la rusuloo Euh, wax na tey tam ne bu ci kenn xeeb ganaar ndeem moom la mën a am euh, kon kii màggal moom fekk kem kàttanam rek na ko def te xam ne suñ borom moom ci xol lay xool waaye du xool ci jëf yi euh, ak itam fonk ay gan bu baax a baax teral leen nga xam ne foo foo toll daal di di baagante di leen di leen teral di leen laaj ndax gan mm, mënut di laaj yow yaa koy laa yaa koy indil jekki-jekki rek indil ko wala nga ñëw laaj ko lu mu bëgg waaw ndax léeg-léeg mu bëgg dara dana la ko rus a wax kon ki nga xam ne moom lañ fekk si moom itam war naa am comportement boo xam ne nii day ñëw ci gan ñi di ko leen laaj lu bëgg maa toxlawu leen nangam ak lim jàpp ne war nañ ko bëgg mu andi leen tegal leen ko ndax yonent bi sallallahu nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu ku gëm yàlla gëm yonent bi nay teral gan kon gan teral ko lu war la ci ab jullit ndax ak xam la ak xam la waaw kon daal mbokk yi euh, loolu mooy li nga xam ne nii euh, andi woon nañ ko mu ajo ci teggin yi nga xam ne nii euh, moom la kii ñëw war a làmboo kii ñu fekk si itam war ko làmboo muy ñaari teggin yooyu nga xam ne ni moom lañ tànnoon tey ànd ko Cheikh Mouhamadul Mourtala Touré mu jox ñu ci tontu yu ama am solo te sukkandiku ko lépp ci njàngaleem Serigne Touba. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant ki nga xam ne nii moo nekkoon ci technique bi muy Serigne bu maar waaye itam di sant mbokk yi nga xam ne nii ñoo ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp di leen dig daje ba beneen yoon incha allahu wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.